أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومنه قاد لي سما ونعم مالك سما أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومنه قاد لي سما إرممال رسما أجابني رب السماء والأرض بالذي سما ومن خاد لي سما asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaanal xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di siyaare mboolem njabootuk sëriñ Touba gi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh May di fi bis bi nga xam ne ci lañ ko daan fàttaliku ak di ko ci ñaanal. di ko booleeg bisub Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne ñoom ñaar ko xam ne demee xam ne seen i mbir ku leen boole jàpp nan ne lu mbégte rek lañ cey am moo tax Serigne Mor mi nga xam ne mooy xalifaam jël lépp dugalaat ko ci Serigne Abdul Xaadir boole leen ni nga xam ne nalan leen yàlla boole woon ak bokk boole leen ak ànd ñu doonoon ab sëriñ ak ab taalibe moo tax sëriñ bi boole ko mbir yëpp def ko benn. ren jii nag ku nekk xam na ni nga xam ne ni la mbir yëpp tëddee kër gi waxtu wi da daan fees dell ak i nit loola nag ku nekk xam na ne jamono moo ko laaj. moo tax sëriñ bi dogaloon ngànt ñëpp ñi nga xam ne ñëwunu waaye muy ña yëkkati kàddu yoo xamante ni da koy jëmale ci mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi nga xam ne bis bi xam nañ fi mu leen toll xam nañ fi mu leen kii moo tax nañu ñu bëgg koo jox kàddu yi nag mu yëkkati ko ñaan ci feebar bi nga xam ne moo fi nekk tawet bi suñu borom jële ko fi ci barkeem ñi nga xam ne ñoom la ñuy fàttaliku waaye ñaanal ñi nga xam ne amoon na ni yéene tamit ak jamono ji ni mu xate suñu borom jàppandi lépp rek kon ñu jox kàddu gi sëriñ bi mu yëkkati kàddu yooyu. sëriñ Saliou ñoo ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di gërëm ñëpp di jaajafal ñëpp itam. di sant ñëpp itam ñi nga xam ne amoon na njéene ñëw ci bis bi ak ñi ñëw ñëpp te ñaan suñ boroom fay leen ñoom ñëpp aw yow barkeb Sëriñ Tuubaa noonu nga ko waxee rek noonu la demee moom Euh, ak murit daa am aw doxiin waxtu wu ne genn kilifa la am ñëpp itam ci ndigalam la ñuy ko moo tax suñ seexum suñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy suñ bunt ci suñ Tuubaa di suñ sëriñ ndigal li nga xam ne moom la ko suñ Muntaxaa jox rek ci ndigal loolu lañ tënku ginnaaw day waxtu woo xam ne xañ na yu bari joxe na ndigal ngir ñu di ko ca moytu moo tax ñu tënku tënku ci ndigal loola te xam ne yoon yëwul ci yëmut ci benn teewul sax nit ñi seenu xir ak seenu bëgg lu baax ak seenu mën koo wut teewut bañ xëyee ba tey nit ñi ñu ngi dikk ka dem ñëpp ngir sàkk lu baax rek ak wut ko moo leen fi andi waaye teewul rek ñu tënku ci ndigal li ba mboolem xumb xumb yiñ ci daan def lu aju ci ay waxtaan ak ay jàngi guddeeg yi ci aju yëpp ñu ne nañ ko bàyyi ba déwén ak jàmm incha allah ba yàlla fekkloo ñu ko fi di ñaan ñu ñëpp fekk ko ak jàmm fekk ko ak tal ak dolli ko te wéeral yi nga xam ne moo indi yii yëpp suñ boroom jeexal ko ci barkeb bis bi ak barkeb borom bis bi ak ñi ngi ciy fàttali ko seen barkeb liggéey di sant ñëpp nag xam ci jiital di jéggulu mbokk yi ak taalibe yi ndax eh, bi mu jublusee xëy na nañ ci daan doxee ren am na ak soppiku ba tax na yëgaluñ ko kenn waxuñ ci kenn dara loola itam ndigal lii ñu wax nii rek moo moo ko indi ngir bëgg a tënku ci ndigal li rek bañ a wuute ak moom moo tax képp koo xam ne ndaw daana ñëw ci yow ci dikku fay itam nga xam ne loolu rek la waaye du cof kenn du gàttin lu ci kenn du ñàkk boole kenn ci suñ bopp ñëpp li liñ doon ci ñun xam nañ ko liñ liñ liñ jàpp ci ñun xam nañ ko e, fiñ ñu teg ak e, liñ ñu yéene ak taxawaay bi ñu am ci ñun ngir jëmmi ngir suñ jëmm waaye ngir jëmmi borom kër gi mu doonoon koo xam ne ak jaamu yàlla la boo xam ne dafa nekkoon ca la war a nekk sax ca daan jaamu yàlla di am jullit bu dëggal ak ak ak di am am murit bu bu bu bu bu ak muritam sore boo xam ne jataay bee yaatu ne kon mën nañ cee joxe ay misaal yu bare bare yoo xam ne kuy joxe kuy joxe misaal ci ci ab jullit bu jullite ci ay melo yi ak njullit laaj ak kuy joxe ak murit gu gu gu gu murite yooyu tax xam ne am murit a ngi nii lu ci nekk ma des na ko caa joxe misaal kon ci barkeem ak barkeb lu baax liñ fi def mm-hmm. ci alxuraan jiñ fi jàng nga xam ne ay téeméeri téeméeri kaamil jàng nañ ko fi mm-hmm. ñu ngi sukkandikoo ci loolu di ñaan lépp suñ borom nangu ko te saare ko ci réew mi def fi jàmm yokk fi xéewal defal jàmm ñëpp ci jeexal lii sonal nit ñi ba mu jeex tàkk ci réew mi mm-hmm. ñëpp delluwaat ci seen sago mën a jaamu ji yàlla ci liggéeyali sëñ bi ndax eh, eh, loolu rek moo moo moom lañ bëgg te moo ñu jëkk ay murit lañ liggéeyal sëñ bi rek moo ñu jëkk kon lépp lu lu ñu cee gàllankoor lu ne rek yàlla nañu suñu borom tàggale ak moom ba ñëpp delluwaat ci seen sago eh, lañ war a nekk ñu nekk ca ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen sant yéen itam ci seen i taxawaay bu baax a baax di wax dëgg seen seen seenu jàpp kër gi ak seen kóllëre suñ diggante gi yéen xam nañ ko bu baax a baax yéen ci seen jëmm ak ak ak kër yi nga xam ne ñoom ñoom ngeen àndal. ñëw ñëw fi. ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax tey ñaan suñu borom defal leen ak dolli ko. ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bu baax jërëjëf. jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi nu doon seetaan ñu dikkoon fii ci kër Sëriñ Cheikh May Mbacke moom soxna May. waaye moom sëriñ moor Soxna di taawu maam Mor Jaara ni ko sëriñ bi waxee yaakaar naa ko xamoon sëriñ bii ñu doy fàttaliku ci baaxam ci melawum ci jullit kenn ko mënu ko ci woon a dab kenn mënu ko woon dabit ci taalibe ak taalibe moom ku nekk xamoon na ko ndax yàlla dimbali na ko ba waa waajuram wi nga xam ne mooy soxna may moo doon wax naa may munatul bintul xaddim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara di doomi sëriñ Touba bi mu wàccee liggéey sëriñ Fallilou dafa wax ne lu nekk ca barab bu wetu barab bu Cheikh Ibra ñu ne ko dara nekku fa mu ne nan fa yóbbu soxna May mi ba Cheikh Ibra xam ne am na ku bëgg woon ni Serigne Touba di moom kon kooku ak bëgg sëñ Touba am gu wér la la ca dolleeku mooy jëmm ji ñuy fàttaliku atam Cheikh Ibra ci la gane àdduna muy Serigne seex May kon moom taalibe gi ni wax da ko màndargaal ci yëppam ci léppam nekkoon ak taalibe mu doonoon murit saade boo xamante ni jullit àkkan kon moom la ñuy fàttaliku bu ne jullit àqan doy na sëkk rek ñu ne sa Abdou Khadir la ko yar muy nijaayam loola doy na melaw jullit doy na melaw kii bu ne murit saade lay tamit doy na soxna May mi ñu wax ci qualité yi ak melow yi ñu ci wax kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan kër gii nag nga xam ne li fi sunu borom defoon ci barke def ko ci tuyaaba def ko ci xiiwal kër googu yàlla nay gën di ball ci njabootuk sëriñ Cheikh may gi ñuy ñaanal sëriñ Cheikh sunu borom yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe di ñaanal njabootam gi fi des sunu borom yi guddal seeni fan te wéral leen ay xemmamteef leen ay royukaay leen yàlla na leen sunu borom teg loxo ci barkeb sëriñ Touba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu